Bismillah. waa Casamance moom ah ma ne temps yi yëngu na de mardi daal Vox Populi ne am na ci ay jàmmaarloo yoo xam ne day amati woon na de diggante armée ba ak yenn ñoo xam ne nag maanaam dañoo yori ngànnaay am na ko inna lillahi wa inna ilayhi ne ko may ma ma yegali may ma ma yegali ma ne xamoon ne bilan a diis sax ma ne la bu ñu sukkandikoo nag ci dir ba yor nag wàllum information ko nekk ca armée googe waaye dongal bi nga xam ne nag ñu ko dongal ñi nga libération yéen ne enquête bi day <coughs> ci ñi xam ne nag ñoo rayee kon foofu fee ca boppam ayot waaw jàppal ni raykatu nit ya day ak ñi leen yónni koy di seeni complice waaw ma ne la instant bi kay wër nañ leen ndomba wër nañ leen ndomba waaw waaw la solo yéen ne dama ne ab général boo xam ne day waati na na kon ca terrain ba ma ngay wër raykatu nit yi nga xam ne kon ñoom ñoo rey na ca boppam ayot googe hmm. kooku kana ah? xanaa Moussa Fall la ilaha dootu ko laajte ci ne nak ray raykat nit yi nga xamne ño ñoo faatoon El Hadj Omar Lamine Badji la ilallah te gis nga sere rafal mi waaw mané la allo ka Casamance ko lu ne def nako ko fa nag te ñaa gis ba ca YouTube bul fàtte efok ba mbon ndax e mbak yene ka gi ne mané la enquête ba dey waaw sori no lol maa la wax bu gan ngey dani dey dem sori na dakaru njaay jël joobe termine yene ka ne bu gan ngey dani dey waaw mané ne la démb kon ma nga won ca allo ka samas ka ya jum wala ma jum mané lolou am séti won nak soxna si di fanta jeyite mi nga xam kon mom la fi daaw da manga bay mom daw da manga dey waaw mom la ñu mujjé ray na ca wàllu Casamance koo kee mooy quatorzième victime ba ca massacre ba waaw bugaan ngay dañuy yemu ca ndaxte dañuy gay day demoon na buuro faay bay nu ko dem na ñu i bàyyi noonu ca àll ba day dem na ne kon Ndiaye jël Diop démb day ëpp na ba doon liggéey ci kër ga day deuxième étage la daal ko demee ngir mën a rëcc xalifa fu muy rëcce libération yi kay de kalaame bi nga xam ne ne ko day ca tribunal ba ca CEDEAO waaw xalifa Sall dama ne lu tolloo juróom fukki milliards lay laaj nguur gi lé eh way samba cinquante maa la ko wax ma Ndakaaru Ndiaye jël Diop kii yamu ca daal mooy ñu génnee ko ca kaso ba ci nu mu gën a te tam ate bi ñu koy ate ci tribunal bi day nañu ko aje ba jëmmi jamono tey ate ba ate bi ñu ate élève day waaw la ko ci yéene kaay nee na Serigne Mbaye Thiam day ma ngay jubbanti ne kon lëbbatu ñee eh, waaw parce ki jiite avocat day daa duumaal nag maanaam Serigne Mbaye Thiam ne ministre bi dafa bañ a wàccoo ak décision de justice le tribunal ba dogal ba nuppi waaw moo taxit ministère éducation communiqué ne bâtonnier bi li mu wax tegu fenn sans fondement na génnee preuve ci li muy wax moo xam lu nu wax la wala vidéo la waa ñaanga meeg ñaangale mi waaw cay wàllum ñaanga meeg ñaangale moomee vox bi doon dox jay démb nag ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat ya syndicat d'enseignants yi waaw Mariama Sarr ministre fonction publique affaire ba da koo dépassé mar premier ministre bi Mohamed Boun Abdallah Dionne day pataas bu ba waaw bu rëy ba ne liggéeykat yi day yu CNTS waaw ci mbedd mi la ñu jëm de janvier ma ne la ci mi la ñu jëm ndax wàllum salaire yi convention collective yi nag ba ca accord yoo xam ni kon gouvernement bi da koo woon te wàccowul ak moom yéene kaa gi ne gouvernement bi day waaw plan Sénégal émergent kii chantier yi ci nax saa taxaw la jëm maar day taali laal ba maar day taali ma ne plan Sénégal émergent émergent plan Sénégal émergent émergent dama day boo sàgganee ah départu gaynde arrivé muus décollage bu rëy mais atterrissage forcé fa la ñuy mujj maar day taali ay de construction waaw moo amatul ci réew mi réew mi de xanaa dara amu fi Sophie Gladima Siby waaw nee gis nga bu ñu gaawul ci lii lii raamte nga wala jam te fa amee kër fa gaaw a génn laa la wax tension mooy yoot mar d' itali baax na réew mi réew ne mbir mi bloqué na dee enquête yéen a kaay ba waaw parrainage lee ko bloqué de Macky Sall day bëggul ku ko bloqué déedéet ubbil réew mi quotidien mar d' itali gis nga mbirum deuxième mandat Macky Sall da koo def une question d'honneur maa la ko président jeune ñëw am benn mandat maar de Italie Macky Sall kay dana ko jaral lu ne mu nar a wuute lool ak François Hollande bi mu ba xam ne yow doo dem mais daa bàyyi président François daa bàyyi Macky nag moom da koy jaayante maa la ko waaye nag da ko leer ne gis socialiste ak AFP waaw jaratuñ dara ay parti yu daanu la journal bu jeex pire léegi kay parti démocratique sénégalais déclaration yeeg ma ne la APR ak PDS mën nañoo andi PDS sañuñu ko baax na nañ dem rek parce que parti ànd ak ba Sall yëpp a yëngu PS AFP LD PIT fépp a yëngu laa la wax socialiste day gën a yëngu nag terminé yéene kaay de juróom ñaar fukki at yi soixante-dix moom parti socialiste waaw saa yi bu gën di wàcc rek di dégg rek ngole Ousmane Tanor Dieng ne la day mi ngi jéem ngir morceau yi tasaaroo yëpp mu daal di koy dajale bu dee nag ñu bëree bëri kon ñu ngi laajte lan moo desati kon ci parti socialiste ginnaaw ñu sakat ñi nga xam ne kon ay responsable dàq leen PS lan moo fa desati Ousmane Tanor Dieng nag mel na ni day mi ngi am présidentielle yi ah guerre na de ngir kat mooy doon candidat bi maa la ko wax maa ngi koo taxaw Sénégal kay ci xar ñaar la jëm uh-huh. maa la ko wax dem naa ca lamb ja tribune sox ne Ama Baldé day waaw digganteem ak Papa Sow moom lañ jox fa bëri moom Ama Max Mbargane ne attention de attention de Ama Baldé bu mu sukkandiku foofee eh. ba beew maa la ko wax parce que nag gis nga bët la koy fatu ko gis <laughs> alaaji dégg séeréer dégg nga max de bët la lu koy fatt di ko gis yàlla nañu yàlla musal ci beew boo paree ma ne la alaaji tëjal